mu ne d'accord mu jigi mu ne dina indi mécanicien après daal ma ne ko yow de joxagoo ma sa papier pour ma kii la mu ne ma bi may jógee fële di ñëw sama papier sama lépp dafa wadd ci benn oto ma ne ko oto mu ne ma waaw ne ko waaw oto bi xanaa jël mu ne ma woo naa ko fi nekk nii mais mënuma ko jot oto bi ma jëloon la dama ko luwe woon wax ay wax daal ñëw na ma am na ko ma booleel TFM sax ba def naa déclaration bi ñi ngi recherché papier un jour mu ne ma madame kay ma ñëw toog ci appartement am bi mu ne ma waaw am na rek téléphone am sane mu ne ma voilà am benn waaye ba naa kon for naa papier yi waaw fa maam naa ko for dugg simila la daal ma ne ko amul problème man tam ma daal di dem fekk maa ngi ko la sonal pour enregistrer ko ma ne ko léegi an sa passeport français mu ne ma dama ko bàyyi Saint Louis ci sama yaay waaw man mail biñ ma envoyé dañ ma ne Ousmane Diop mais moom bi mu ñëwee dafa ni moom Chimère jaw la tudd mu ne ma Ousmane mu jël ñëw moom Chimère moom moo ñëw moom Chimère Diaw moom moo ñëw Chimère Diaw la ma jox ne ma il est de Saint-Louis dugg na fi génn fi yàlla natt ko nag waa ji di ma jongale di ma jongale ba jour bi nga xam ne sës na ne naa ko sama tonton mi neen il faut ñu enregistré la il faut sa papier mu ne papier feeñ na ñëw na léegi mi ngi taseeg waa ji pour mu jox ko papier mu andi ko jour boobu xam naa ci la préparé woon kowam bëggoon a dem ak oto bi faf sama doom bi yoro oto bi génn ak moom mu xaar xaar mu jig mu ne mi ngi ci rond bi fekk le lendemain moo nekkoon dernier délai pour xaalis war a dugg ci compte bi tax dama ko ne sem ne nii jeex na xaalis war na dugg ñu ngi def ay démarches mu naan yónnee leen sa RIB bancaire ak lu kenn xamul yooyu yëpp ñu def ko man daal yëguma yëg lu dul waa ji daal ne ma mi ngi ci rond point école Maristes bi di xaar euh, ki ko war a andil papier mi pour ma enregistré ko ma ne ko waa amul benn problème ca laa gëj a dégg waa ji numéro téléphone bi ma joxoon doxatul ma dugg ci Facebook am bi doon dox mu ciy wax ak man parfois ci ci kii kii bi compte boobu ñu annulé ko lépp léppam annulé lépp WhatsApp am ak lépp ci laa xam ni nag yàqu nañu ma daal di woote alerte ñu daw dajji appartement bi fekk ñu fa dara mu yóbbu lépp bagage am ak lépp je appartement bu moom dara manqué wu fa quelque abeem la fa bàyyi ñaari t la ak short ak kii nii la def yóbbul na ma 10 jours de location fekk bi ma defee facture yi daf ma ne noonu li dafa tuuti yow jigéen nga ñi ay tubaab lañ am na xaalis mën nañ fay kon nag yokkal facture yi waaw yokk ko ma naan waa ji moo baax ma naan ah man de dal naa ci client boo xam ne vraiment lii ah lii baax na kii baax na am yërmande bu bëgg dee ah ndekete yoo noonu la ñëwee arnaque ma naroon na yóbbu oto bi yàlla moo ma suturaal ba oto bi damul yàlla moom ma suturaal parce que boobu commencé naa di énervé si commandant bi nekk fii maris dafa xarañ ak yooyu yëpp dama ci daan waxtaan ak moom parce que man dama xawoon ñaaw njottuti rek mais ak euh, kii bi ma doon bindante ak man banque Paribas bi nekk euh, Paris ak yooyu ma am confiance ak société bi ma doon bind ndekete loolu lépp ay arnaque la loolu lépp moo ko def waa ji daal noonu la fi jaare daw man nag yóbbulu ma dara xanaa 10 jours yi fi tëdd di lekk di naan oto chauffeur di ko yóbbu mu noonu la euh, mu yóbbu 10 jours yi soit 400000 otoog chauffeur di ko yóbbu. nekk ndékki añ reer loolu daal la fi waa ji def ñuy jigéen nag di daan suñu doolee ñoom ñuy sénégalais waroon ñuy jàppale wala leneen ñëw di ñu arnaqué et tant d'autres nag Sénégal ci boppam moo yàq parce que arnaqueurs yi bari nañ fi. arnaqueurs yi bari nañ ci man on m'a arnaqué ay ay ay nit yoo xam ne nii doy na waar daal doy na.